asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Djibril Gningue nekk responsable paix et sécurité foofule ci groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative la bonne gouvernance ñu gën ko am ci GRADEC ñu fas yéene waxtaanee rôle bi nga xamante ni kuréel googule am na ko wàllum bonne gouvernance file ci Sénégal wàllum démocratie liberté d'expression ak élection locale yi nga xamante ni actuellement moo occupé actualité bi importance bi nga xamante ni maire am na ko ci ab commune violence électorale yi fichier bi euh, électoral bi daañu ko waxtaanee affaire Barthélémy Dias ak yeneen i ponk euh, yu soxal actualité bi ñu koy waxtaanee ak kii di Djibril Gningue ñu koy nuyu dalal ak euh, euh, jërëjëf Ndeye Comba Moreau maa ngi lay euh, nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu sa auditeurs yi fii ci Sénégal ci diaspora bi ak ci àddina si yëpp. Mhm. bon invité ngeen ñu plusieurs fois man bon <laughs> j'ai pas eu l'occasion de venir mais. Mhm. jafe euh, jafe woon na. voilà jafe woon na mais mhm. tey bi ko yàlla tuddee voilà. ma ne qu'est-ce qui sa passe ba tax waa GRADEC surtout si contexte bi dala leen jafe. alors que li ngeen war a wax bari na. waaw waaw parce que là simplement on a de multiples occupations. bon mhm. xam nga euh, bu élection jotee moom. Mhm. Euh, élection dafa bokk ci li nga xam ne moom la GRADEC di gën a liggéey. li ñuy wax cœur de métier. c'est-à-dire que euh, société civile euh, kuréel yi ci nekk ku ci nekk dafa am kër euh, de métier maanaam ci li nga xam ne ci nga ci ngay gën a yëngatu. Mhm. waaw GRADEC nag kër de métier mooy élection. Mhm. moo tax saa su élection jotee GRADEC du am jot. du temps voilà. waaw euh, ñuy ñëw exactement sax ci GRADEC parce que ñu ngi dégg GRADEC ñu bare mais xamuñ exactement kuréel googu lan moo ko wundu exactement. waaw GRADEC euh, comme ni ma la ko waxee euh, dafay yëngatu ci mbirum élection mais ci comme ni ko turwi di waxee mhm. ci euh, wàllu bonne gouvernance wàllu démocratie participative bu yàggul rek GRADEC def na formation ci conseil départemental bu bu Kaolack mhm. ak euh, commune bu euh, euh, bon j'oublie là il une commune qui est à Kaolack. Mm -hmm. également fële à Matam. également ak Kanel. Mhm. def nañ fa ay formation pour les conseillers départementaux et les conseillers municipaux yi ci wàllu non seulement décentralisation mais ci wàllu genre également. Mhm. ci wàllu genre. Euh, bi nga xamee ne également euh, deux mille dix neuf élection yi préparation élection yi jafe woon métti woon na lool. jàmmarloo bi en deux mille dix neuf waaw mm. élection. Euh, présidentielle bi mu amoon pratiquement rupture du dialogue entre l' opposition et le pouvoir. GRATEC ànd na ak yeneen kuréelu société civile euh, pour def médiation. rencontrer opposition bi. Mhm. Euh, daje ak président de la république pour fexe ba euh, jàmm am ci diggante bi. Mhm. Euh, évidemment boobu amuñu ci succès amuñu ci succès mais euh, parallèlement GRADEC organisé woon na li ñuy wax le forum des partis. le forum des partis waaw des partis. Euh, ñu ngi ko ñi ngi ko organisé woon euh, fii ci hôtel euh, Mamoun mu amoon juróomi panel yoo xam ne dañuy woow dañ ci woow ay boroom xam-xam ci wàllu élection ak wàllu démocratie woo ci parti politique yépp opposition comme majorité pour ñu waxtaanee affaire fichier bi affaire carte électeur yi mm-hmm. affaire carte électorale affaire opération de vote yi. Mm-hmm. Euh, pour que ñoom ñëpp ku ci nekk li ci nekk sax euh, ki li nekk sa xol. Mm-hmm. nga mën ko yebbi. Euh, ñi nga xam ne ñoom ay boroom xam-xam lañu. Mm-hmm. seen xam-xam màcc ci mbir yooyu. ñu nekk ay experts non seulement sénégalais mais ay experts internationaux. indi ci ay tontu yu leer yu dal xel. ba nga xam ne loolu aussi contribuer na ci pacifier. euh, la situation politique en 2019 ba permettre évidemment ñu mun a dem def ay organiser ay élections euh, yu disons. ci ci jàmm ci jàmm ci jàmm tu vois euh, GRADEC woon na également <coughs> ay tournées ay tournée pour euh, euh, dans euh, vingt deux départements <coughs> xam nga boo xoolee Sénégal. quarante cinq départements. donc dans la moitié des départements du Sénégal dem rencontrer préfet yi rencontrer SEDA yi maanaam Sénat ñi leen toogal. ñi leen euh, ci département yi euh, pour waxtaan ak ñoom xool affaire carte électeur yi parce que indi woon na coow lu bëree bëri. Mhm. nan lañ koy distribuer yan jafe-jafe ñoo ci am euh, càmbar ko et cetera alors xool processus électoral bi. bi ñu dellu see ñu def rapport boo xam ne jox nañ ko Sénat jox ko direction des élections euh, jox ko administration bi euh, n'est-ce pas loolu aussi yaakaar nañ ne euh, participer na à consolider la démocratie. au waaw au Sénégal. et à permettre que élection yi également am ci jàmm. mais mais GRADEC ban <coughs> année ngeen ko samp exactement. bon GRADEC bi ñu ko sampee yàggul c'est en mille quinze. deux mille bi idée bi naka la ñëwee lu leen poussé ba ngeen teg ko ak euh, ñan ñoo nekk ci biir GRADEC. voilà c'est <coughs> ce question bi c'est une question <laughs> très intéressante mm-hmm. parce que euh, GRADEC ñi ci nekk. Euh, Euh, mën la wax ne ñu ci bëri euh, dañu nekkoon ci ay parti dañu nekkoon ci ay parti politique euh, par exemple su ma jëlee président bi mhm. président bi mooy Mazine Ndiaye Mazine Ndiaye bon c'est un homme de gauche un leader de gauche mhm. dans les années soixante déjà en France il était dans la dans la FEANF e la Fédération des étudiants africains n'est-ce pas où il a beaucoup milité euh, avec euh, beaucoup de leaders sénégalais et beaucoup de leaders africains d'ailleurs mhm. bi mu ñëwee Sénégal également bokkoon na ci kuréelu euh, gauche par exemple man ak moom ci foofu la ñu xamante mhm. tu vois alors eh, ñeneen ñi am nañu ci nekkoon ci yeneen parti yeneen parti politique yeneen parti politique waaw yeneen parti politique bon am na ñoo xam ne aussi dañu nekkoon ci syndicat par exemple euh, man nekkoon naa ci syndicat syndicat des enseignants. Mm. Euh, nekkoon naa membre fondateur laa ci UNSAS. membre fondateur fondateur laa ci UDEN. Mm. nekkoon naa également secrétaire exécutif fédération internationale des syndicats de l'enseignement donc ay soo xoolee bu baax ay nit yu am expérience lañu. Mm. ay expérience yu wuute te riche donc euh, ci wàllu. Euh, démocratie ci wàllu politique yi ni muy doxee ci wàllu àddina ni muy doxee donc euh, ñu bi ñu waxtaanee ñu nekk nag ay ñoo xam ne dañu xamante alors euh, soit sur le terrain politique ou syndical ou autre eh, amoon ay relations d'amitié mhm. di waxtaan ci réew mi ni muy doxee alors ñu dem ba daal euh, gis ne réew mi ni muy doxee soxla na Euh, ay kuréel yoo xam ne euh, maanaam genre euh, contre pouvoir la ñuy nekk du ñu nekk contre le pouvoir <laughs> comme l'autre dit mm. mais contre pouvoir mm. maanaam dañ fiy nekk pour lu dëng ñu joyanti ko en tant que observateur taxawee ne daal voilà en tant que en tant que acteur bon en tant que acteur surtout mm-hmm. mais acteur citoyen hein acteur politique au sens noble du terme tu vois mm. mais pas acteur partisan c'est-à-dire duñu euh, jéng fenn duñu far fenn mm-hmm. tu vois euh, ku doxalul li nga xam ne moom mooy jëme réew mi kanam euh, ñu duut ci baaraam mm-hmm. wax la ne li ngay def baaxul conséquences yi lii ak lii ak lii la luñ ci mën a dox aussi ñu dox ko bu amee ay violence par exemple yoo xam ne baaxul ci réew mi ñu gàttandu ko laata muy ñëw bu ñëwee aussi ñu dox ci tànku jàmm pour mën ko fay c'est comme <clears throat> au mois de mars les événements des deux 3 4 et 5 mars mhm. yële weesu mhm. euh, non seulement def nañu tout pour gàttandu mhm. mais bi violence yi amee également euh, am na kuréel bu mag benn plateforme boo xam ne GRADEC ci la bokk mooy jàmmi réew mi dox nañu wax ak leader yi euh, yu majorité ak opposition Euh, wax ak sëriñ si également wax aussi avec le pouvoir tu pour vraiment ramener le calme apaiser. la situation mm. donc voilà un peu euh, bi nga xam ne euh, moo nekk à la base justement la la création du du voilà, jëlee ay financement pour def bon, seen activité voilà une question intéressante mm. euh, il faut dire très très difficile c'est les partenaires Euh, disons mën nañ leen wooyee noonu ay ONG euh, internationaux lañu généralement yoo xam ni dañu am ay bureau fii ci Sénégal. comme comme par exemple yan ONG. voilà ñu mel ne OSIWA. Mhm. OSIWA par exemple. Euh, aussi euh, euh, le, le, le Canada a mis en place une euh, y une ONG là bon ñoom aussi. ils font des, euh, des financements. ya une fois, on a eu euh, un financement de l'État. Du Sénégal. Hein? Oui, du Sénégal. projet. Et, et dans euh, quel cadre Moi, par exemple, bi nga xamee ne état bi mi ngi def refonte fichier en 2017. Mm -hmm. ci volet communication état booba mooy carte CEDEAO yi la. Mm bi ñu boolee carte d'identité yi ak. Euh, carte électeur yi. Mm -hmm. booba bi soxla woon na. Euh, ñeneen ñu leen defal ñoo xam ne bokkuñ ci état bi ñu leen defal communication. Mhm. pour euh, vraiment gën a jàll euh, gën a jàll voilà. Mhm. donc boobu joxoon nañu un appui bëriwul woon mais bon ça nous a permis de sillonner un peu l'intérieur du pays. et de communiquer avec directement ak. ak mais su weesoo ONG yi fan ngeen di jëlee ko bon euh, nos propres moyens. Mhm. Hein, nos propres moyens c'est pourquoi c'est très très difficile. mais loolu naka lay demee. xanaa Djibril Gningue du liggéey xaalisam ñëw di ko def si les les activités de GRADEC est-ce que amul lu ko doy. ah bon ben bien sûr. bien ouais. sûr am na lu ko doy sëkk <laughs> comme on dit mbuba ak tubéy. mais mais GRADEC mais... ONG la wala du ah. ONG. dafa bokk si kuréel yi nga. xam ne tubaab yi ñoo koy financé wala bokk si. non GRADEC euh, association la. du ONG. du, du ONG xam nga. Voilà. ONG balaa nga koy nekk. da ngay am euh, durée de vie cinq ans loi wu Sénégal loolu ñu tëral euh, boo amee dure de vie boobu mën nga euh, constituer un dossier pour demander un statut d'ONG. d'ONG voilà maintenant mën nañ la ko accorder. léegi grade dafa bokk ci ñi nga xam ni tubaab yi ñoo leen di jox koppar waaw wala déet. mais dinaa la wax lenn ci affaire société civile. Mhm. tey jii Euh, xam nga euh, dafa am dañuy wax le projet démocratique maanaam démocratie ci àddina bi projet la c'est un projet c'est un processus nit ñi euh, réew yëpp dañuy jéem a atteindre euh, disons euh, le plus haut point dison dans la la la la la démocratie ah démocratie mun loo euh, jékki-jékki rek na ak naa ci mhm. waaw da nga koy améliorer sans cesse de façon continue mm -hmm. n'est-ce alors projet boobu donc le projet démocratique ñi nga xam ñoom ñoo koy porter ci réew yëpp mooy état bi mooy classe politique bi mooy aussi société civile alors loolu tubaab yi ak réew yi nga xam ne dañu développé Mm-hmm. ñoom dañu ko xam ba nga xamee ni en Europe que ce soit en France en Angleterre en Allemagne aux États-Unis dañu ko xam ba nga xam ne ñoom ci budget bi ñuy voté à l'Assemblée nationale dafa ci am parti bu bëri boo xam dañu koy voté pour la... ONG yi pour société civile pour ñuy militer pour la démocratie dans le monde justement pour société seen société civile u réew pour ñoom seen société civile. civile lu réew. d'accord dañuy ci bu ñuy. comme par exemple aux États-Unis d'Amérique dafay am budget bu ñu réserver la société civile. voilà très bien pour ñu mën a def seeni i activité. parce que jàpp ñu ne. Mhm. société civile seen activité bopp la ñuy def dañu jàpp ne démocratie projet la boo xam ne daf ci am pàcc boo xam ne état bi moo ko yore. am pàcc boo xam ne classe politique bi ñoo koy doxal am pàcc pàcc boo xam ne société civile ñoo ko yenu donc pàcc bu ci manqué rek. Euh, os bu ci manqué mi ngi mel ni cin. Mhm. day am ñetti os. li ñuy wax wos maanaam li ñuy li nga xam ne mooy taaju. mooy taaju bu bu amee wos bu ci manqué. rek cin bi day daanu dafay daanu. donc société civile bi bokk si yi gën a am solo. Ah, très bien pour taxawal donc ñoom moo tax ñoom dañuy non seulement état bi day financé mais y des mécènes qui financent la société civile y a des organisations caritatives yoo xam ne dañuy financer société civile tu vois. il euh, y a des œuvres de bienfaisance dañuy financer société civile donc moo tax réew yooyu société civile amu fa problème mais suñu réew yi mhm. suñu état yi jàpp ñu ne société de fa bokk ci porteuru projet démocratique moo tax ñoom état bi duñu ko financer wax naa la état c'est mhm. rare c'est exception là mhm. <laughs> une fois n'est pas coutume euh, ñun on a eu ce financement là lors de la refonte du fichier mais boo doon wër parce que bu ñuy wax financement normalement chaque année war na am budget boo xam dañ koy yëkkati ko euh, tel kuréel ou tel bien sûr moo tax tey boo doon wër tey su euh, associa euh, kii yi nu mu tuddati les organisations de la société civile yi nga xam ne état bi da leen di financer tu ne vas pas en trouver du tout ou bien tu vas en trouver <laughs> ce sera la portion congrue est-ce que tu vois mm. alors Euh, c'est pourquoi c'est pourquoi mmh. je mm. réponds à ta question toujours mm-hmm. c'est pourquoi alors ce sont les euh, nu mu tuddati ONG internationaux yi fi nekk ay Oxfam ay Osiwa ay euh, euh, et cetera qui sont là vous le connaissez très bien. ñoom ñooy jëlaat ci seen i koppar jox leen ñoom ñooy da ngay jël sa projet. Mhm. ñoom dañuy def appel à projet. comme Union européenne. Mhm. chaque année soo duggee ci seen site bi dañuy def appel à projet ku ci nekk am na weer boo xam ne ci année bi ci nga koy def alors. boo gisee appel à projet yi dafa am condition yu ñuy poser mm-hmm. alors euh, les organisations de la société civile dañuy compétir à ça suñu compétiree su fekkee ni bii tu es euh, euh, éligible d'abord il faut être éligible si tu es éligible nga compétir si tu remplis les conditions les critères mm -hmm. sur cette base là tu es financé et tu développes les activités pour lesquelles tu as lañ la financé boo paree tu fais la comptabilité les les tu, tu déposes les les états financiers donc c' est c' est comme ça que ça, ça non, se passe lay demee donc ce n' est pas de l' argent. bu ñuy joxe nii c' est des projets qu'on finance. voilà c' est des projets qu'on finance da ngay rendre compte. fii laa dugal xaalis voilà voilà y' a la redevabilité. Mm -hmm. euh, n' est ce pas euh, qui est tout à fait. euh, de rigueur dans ce domaine-là. voilà euh, tey jii euh, yéen waa RADEC ban analyse ngeen def ci démocratie ci réewum Sénégal peut-être sax dañuy passer euh, le régime de d'Abdoulaye Wade mais dañuy ñëw ci régime mu Macky Sall de 2012 à 2021 ban analyse ngeen def ci tolluwaayu démocratie réew mi. Euh, démocratie tolluwaayu réew mi mënuloo ko jël rek Mhm. yemale ko ci euh, Macky Sall 2012 ba léegi analyse boobu boo ko defee dafay nekk li ñuy wax analyse partielle. partielle pourquoi partielle. mais pour analyser bi est-ce que euh, li fi Ablaye Wade liggéey ci wàllum démocratie est-ce que Macky bi mu ñëwee daf ci yokk walla daf ci wàññi. Euh, bon on peut dire que am na aspect yoo xam ne. Euh, yokk na ci mais am na yëpp aspect yoo xam ne wàññi na ci. lan mooy yokk. alors non li ma la bëgg a wax mooy Sénégal ci mm-hmm. boppam. Mm-hmm. parce que ñi ñuy déglu dañu war comprendre réew la boo xam ne 1848 euh, la dugg ci démocratie. donc du réew 1848. ci naka la duggee ci démocratie la commencé la ñu commencé voter au Sénégal. Mm-hmm. maanaam vote bi moo la démocratie ouais, le, le, le, ça c'est un acte de, de, de démocratie pour élire ses représentants et cetera d'aller voter ouais. voilà pour élire ses représentants alors alors que pays yu bëri c'est lors de l'appel de Mitterrand mm -hmm. pays africains yi en 1989 l'appel de la Baule ci la ñu duggee def transition démocratique li ñuy wax transition démocratique les conférences nationaux nationales plus tard en Afrique mm. ah ak transition yi donc mais le Sénégal c'est depuis 1888 qu'il faut situer son entrée dans la démocratie alors mais Sénégal dafa am étape ay étape yu mu def mm. yoo xam ne jàll na ko waaw mën nañu wax ne réussir na ko plus ou moins comme par exemple mooy étape bi nga xam ne moom la njëkk jàll mu yemoo ak bi fi Senghor nekkee mooy état bu démocratie formelle li ñuy wax démocratie formelle maanaam mandarga yi nga xam ne quelques mandarga yoo xam ne pays euh, euh, démocratique daf koy am bon am drapeau am euh, hymne national mm-hmm. am constitution am assemblée nationale <laughs> am ay institution et cetera waaye di organiser élection waaw date bu nekk mm-hmm. loolu étape la woon ci ci ci ci démocratie boo xam ne amoon na ay euh, matadi yu bëri mais amoon na déjà avantage yu bëri par rapport à d'autres pays africains yoo xam ne <laughs> loolu nekk amuñ ko woon mhm. alors bi ñu jógee ci loolu ñu dugg ci beneen étape boo xam ne moom la ñuy wooye démocratie politique et institutionnelle mhm. mu yemook bi fi abdu Diouf nekkee euh, gis nga ko bi fi Senghor nekkee benn parti mu amoon waaye bi du Diouf ñëwee dafa ubbi ne parti yi nga xam ne yëpp bëgg nañu créer wu nañu. jàkka jàngook mën a nodd na nodd mm-hmm. Mm-hmm. ba pare am na institution yu bëri. Mm-hmm. ci lañu ko euh, mettre en en place tu mais euh, jusque là réewu Sénégal. donc pluralité des partis c'est avec. waaw ouais, l'ère de d'Abdou Diouf. voilà avec l'ère de de de mhm. euh, bi nga xamee ne euh, Wade Wade Ablaye Wade disons le président Wade ñëw na aussi euh, loolu démocratie politique et institutionnelle boobu le le le le continuer. Mm mais. Euh, mën nañu wax ba léegi ne réewu Sénégal démocratie bi dafa des di nekk une démocratie institutionnelle. maanaam maanaam wàccul ci suuf dugg ci société bi. Mhm. dugg ci société bi te loolu ni koy démocratie di defee euh, ci ñaar la d'abord ci gouvernance bi maanaam yorin wi ni ñuy yore nit ñi citoyens yi. ni ñuy yoree institution yi ni ñuy yoree alalu réew mi ni ñuy yoree soxla askan wi beneen bi euh, mooy mën naa la wax décentralisation mmh. décentralisation bi Sénégal ba léegi dafa rester dans un cadre institutionnel voilà euh, mi ngi ci tex yi ñu bind ko. Euh, woote ko waaw maa ngi ñëw voilà justement ñu ngi élire ay maire conseil municipal et cetera et cetera mais boo demee ci gox bi di nga gis ni maire baa nga ne ñu ne maire baa ngi liggéey waaye nit ñi boo leen laajee lu leen maire bi di defal. xamuñu ko wala ñu ne la deful dara. donc c'est resté dans un cadre tout à fait institutionnel, institutionnel. donc la démocratie au Sénégal dafa war a jéggi étape boobu étape bu. démocratie politique et institutionnelle dugg ci état bu démocratie moderne post institutionnelle démocratie moderne post institutionnelle mooy démocratie boo xam ne mhm. dafay reposer wu ci état de droit liberté yi ñu sàmm leen bu baax individuelle et collective mm-hmm. euh, mu am gouvernance bu sell boo xam ne nit ñi dinañ ci yëg seen bopp transparence pouvoir transparence mm -hmm. pouvoir bi euh, wàcc ci suuf tu vois éducation bi nit ñi di jàng di faju mhm. am lu ñu souveraineté alimentaire donc loolu lépp ci démocratie mais bien sûr mm c'est-à-dire les droits sociaux économiques et culturels non seulement day am les droits mm -hmm. de première génération mhm. li ñuy wax les droits politiques civils et politiques yi nga xam ne justement ci état bu démocratie euh, formel ak état bu démocratie politique et institutionnelle yooyu consacré nañu ko au Sénégal les droits civils et politiques mooy première génération des droits mmh. mais justement bu ñu dugulee bu ñu duggee ci étape bii ma lay wax troisième étape démocratie moderne et post institutionnelle ci la ñuy mën a consacrer les droits sociaux économiques et culturels yi nga xam ni dafa war a matale wàcc ci population bi wàcc ci réew mi. yëg waaw ba pare ci la ñuy dugg également ci troisième génération des droits. des droits des droits de l'homme mooy euh, le le droit au développement le droit à la paix à l'environnement et cetera et donc euh, droit yooyu yëpp ma la wax. Mhm. mi ngi aju ci étape bu nekk ci démocratie. moo tax démocratie Sénégal. yàgg na c'est une vieille démocratie am na étape yu mu jéggi am na étape bu des bu mu jéggeegul waaw léegi comme par exemple ñing euh, euh, euh, parce que bu ñu nee démocratie y a mm-hmm. la liberté d'expression comme ça nit toog ndey kumba tey toog ci rajo bi wax peut-être ñu ñëw jël si ko ne ko wax nga lii wala lii wala tey ji benn groupe ay liggéeykat wala ñoo xam ne am na lu ñuy ñaxtu ci réew mi mm-hmm. courant na wala ainsi de suite Euh, dem di manifester ñu fekk leen fa jàpp leen bu fekkente ni yu ni mel euh, ñu ngi koy def ci régime bu i Sall mhm. est-ce que jàpp mën nañu jàpp ni dafa gàkkal démocratie bi wala loolu c'est dans les règles de l'art non bien sûr que dafa gàkkal démocratie. Mhm. moom laa lay wax. on nga toog fii di wax ñu jël si la parce que wax nga lii wala lii. moom laa lay wax ils mhm. sont restés dans le cadre de la démocratie formelle de la démocratie euh, nu mu voilà, qui est une démocratie quelque part euh, dirigée, <laughs> encadrée. Mm mm-hmm. -hmm. <laughs> encadré voilà mm-hmm. encadré alors fii ngay xool lii ngay def boo deful li nangam nangam alors dañu war a jéggi ñaari étape yooyu dugg ci démocratie moderne post institutionnelle ma bi a maanaam mooy est-ce que démocratie may na comme li fi Guy Marius Sagna defoon Euh, dem ba buntu pale euh, di manifester ba ñu jàpp ko tëj ko est-ce que démocratie. mais bien sûr que maye na ko parce que soo regardé la maison blanche maison blanche ci boppam. Mhm. <laughs> mais nit ñi da ngay gis ay trois quatre cinq personnes ñu dem di manifester foofu est que dañ leen di jàpp du leen jàpp. à limite euh, mën nañ leen verser de loo un canon à eau ou des comme ça et cetera. pour les repousser non non. parce que démocratie foofu àgg na ci maturité boo xam ne ak stade boo xam ne bii. Mhm. Euh, dafa am ay ay droit ay liberté yoo xam ne c'est consacré une culture démocratique boo xam ne président bi du jàpp ne yow li ngay def moom nga koy def non. Mhm. day jàpp ne yow tu parles peut-être à l'opinion donc tant que ñu ngi tere ay manifestation di jàpp ay nit pour pour parce que wax nañ lii wala lii euh, kon ñun bougé gu ñu ngi toujours ci oh, euh, voilà euh, voilà état institutionnel mi ngi waa justement ñu ngi ci état institutionnel de la démocratie léegi boo doon noté le président Sall en terme démocratie yow ban note ngoo koy jox Oh bon, non bon je ne <laughs> on ne peut pas donner ah, bien de tey jii bu ñu ne woon Pradec war na joxe ah. benn rapport euh, ah. si la sur la démocratie au Sénégal euh, de 2012 à 2021 wala 2024 ainsi de suite peut-être yéen amun ngeen ne Macky def na fi lii wala lii wala wàññi na lii ak lii ci démocratie bi ngeen jox ko benn note sur 10 bon euh, bu ñu fekkee ne la war nañ ko jox note on peut juste donner peut-être euh, une note euh, Euh, vraiment qui au-dessous de la, norme, de la moyenne. 3 sur 10 <laughs> bon, 4 non, sur pas, Non, pas 3 sur 10. Hmm. Peut-être mm. tu donnerais euh, <laughs> peut-être euh, 4 sur 10. 4 sur 10. Voilà, 4 Donc, mën nañu wax euh, hmm. Macky dafa wàññi lu bari loo xamante ni Abdoulaye Wade peut-être liggéeyoon na ko ci démocratie. non écoutez c'est-à-dire que démocratie bi. du hmm. affaire personne wax naa la ne. du wax naa la ne. wax naa la sànq. état bu njëkk bi dafa yemoo ak Senghor bu deuxième bi. Mhm. dafa yemoo ak Abdou Diouf mais Ablaye Wade ci la dugg. Mhm. démocratie politique et institutionnelle boobu. mais Ablaye bi mu duggee am na lu mu def moom tamit. Euh, waaw yokk na fi yokk fële mais loolu changé wul fondamentalement. surtout côté mé euh, média yi peut-être loolu ah, c'est Ablaye Wade moo ko yaatal. wa non ku ci nekk waaw am na. ku ci nekk parce que bu ñu nee liberté d'expression à un moment donné peut-être benn télé benn rajo benn journal wala quelques journaux ñoo fi amoon mais c'est avec Abdoulaye Wade ñu am ay rajo yu bëri télé ainsi de suite. waaw soo jàppee par exemple Diouf bi mu ñëwee. Mhm. ci la ci la sud am sud. Mhm. sud sud rajo. Mhm. la première presse privée. privée ak sud quotidien ak Walfadjri ci la am. ci la am est-ce ñëw gën yaatal attends ma ñëw waaw waaw euh, bon bi mu ñëwee aussi euh, euh, yaatal na effectivement. Mhm. bon y a eu dootur télé d'autres radios il a attribué d'autres fréquences. Mhm. est-ce tu vois. voilà mais li ma la bëgg a wax mooy. Euh, du si peut-être personne bi maanaam affaire bi dafay dox. voilà dafay dox. Mhm. fondamentalement mhm. loolu taxul Sénégal jóge ci. étape boobu dugg ci waaw ah, très bien ba léegi mi ngi ci voilà loolu laa la bëgg a wax c'est c'est positif mais taxul mu jóge ci euh, côté boobu tey jii euh, bonne gouvernance am na fii ci Sénégal waaw wala déet ak lan mooy bonne gouvernance euh, bonne gouvernance mooy yorin yorin. Mhm. cest à euh, euh, mooy réew mi état bi ni ñu ko yoree. Mhm. Euh, mooy yorin bu sell yorin bu mucc ayib. Mhm. yorin woo xam ne dafay am transparence maanaam lépp looy def. dañuy xam. li ngi ci jublu euh, dañuy xamit foo ci tollu ñu xam ko te jeexital ba dañuy xam jeexital ma lan la alors. Euh, yéen loolu da ngeen koy saytu. gouvernance mën naa la wax ne la mooy euh, nattukaayu démocratie démocratie moderne yi. Mm -hmm. waaw poste institutionnel boobu ma la doon wax. Mhm. bonne gouvernance moom moo moo moo lay wan euh, fi nga xam ne foofu la réew mi toll ci euh, ci ci euh, ci démocratie. Mhm. tu vois yi nga xam ne formelle la ñu wala e et institutionnelle qui sont plus ou moins des démocraties dirigées daanaka bon gouvernance bi <laughs> demul fenn soriwul. Mhm. mën nañ la wax ne presque amul. amul parce que bon gouvernance war na maye ñu ne euh, njiitu réew mi lii lañ koy fay ci salaire. waaw bien sûr war nañ ko mën a afficher Sénégalais xam ko bien sûr dans les pays dañ ko xam voilà DG bi lii lañ koy fay waaw bi muy ñëw si nguur gi patrimoine am c'était cinq millions comme ça euh, nekk na ci euh, direction bi pendant cinq ans bi muy génn patrimoine fii la toll jaadu na wala jaaduwul est-ce jar na ñu yóbbu ko justice waaw wala de lool lépp bon gouvernance mais loolu la voilà te amu fi amul parce que boo jëlee par exemple la déclaration de de patrimoine mhm. bi ñu def mu yemmoo ak bi Macky ñëwee yaa ngi doon wax léegi Abdoulaye Wade def na lii Macky aussi am na yu mu def yu mel noonu. Mhm. la loi le, la déclaration de, de patrimoine waaw xam nga loolu mi ngi jub dugg ci biir euh, bonne gouvernance donc acte bi en soi c'est à saluer mhm. mais nag dafa am ay matadi yi fi nekk mhm. mooy mooy que booy dugg bu ministre euh, gis nga ba bu yàggul euh, Seynabou Ndiaye Jaxate defe naa am na benn déclaration ou benn rapport bu mu defoon. Mhm. di wax ne amoon na ay ministre ñaar fukk xaw ma lu ko lu ko ëpp. Mhm. yoo xam ne ba léegi. nanguwuñu def déclaration depuis 2012 ba léegi nanguwuñu def seen déclaration. rax si dolli ñi nga xam ne def nañu seen déclaration euh, y a pas les les moyens de vérifier. de vérifier la véracité. Mm -hmm. de ces déclarations. parce que da ngay rek ñëw déposer. loolu la waroon na am waaw waroon na am un organisme. dans la loi waroon na ci def loolu. mu am un organisme boo xam ne bii moom mooy vérifier mooy càmbar loolu pour xam ndagam loolu tegu na ça c'est sooy génn aussi. encore sooy génn nekkatuloo ministre war nga def beneen déclaration. ñu seet bi ngay dugg li nga amoon bi ngay génn li nga amoon bu la war a traduire ci yoon ñu traduire la ci yoon. te loolu amul te loolu nekkul ci texte bi donc euh, bon euh, euh, déclaration de patrimoine dañ koy wax ni rek. boo jëlee toujours institutionnel boo jëlee waaw toujours institutionnel boo jëlee OFNAC. Mhm. bokk na ci réalisation yi Macky indi par exemple qui vont dans le sens de la bonne gouvernance mhm. mais OFNAC là aussi c'est l'acte en soi mooy acte bi nii niñ ko posé mais ba OFNAC ñëwee ba léegi kan la épinglé mhm. kenn dañuy def seen rapport déposer déposer ko mu jeex lépp lépp fa lay toxee tabi géej. déjà démb rek ñu ngi dis euh, cour des comptes naan ñu ngi préparer yeneen deux ou trois rapports comme bon, ça cour wax est-ce que rapport yooyu am na njëriñ. mais ah, amul que boo jëlee deux mille euh, seize. deux mille dix sept deux mille dix huit rapport ñu ngi génn kañ deux mille dix neuf la ñu génn. xam nga ñu génn donc rapport yooyu lan mooy njëriñam. mi ngi am njëriñ rapport yooyu bu fekkee ne génn nañu ci saa bi nga xamee ne. Mhm. ci waxtu wi nga xamee ne ci la ñu war a génn. lañ ca war a la ci chef d'état war a eh, jël appliquer ko mu def ko te man sax jàpp nañ ne ñun GRADEC ne organisme yooyu yu mel ne Cour des comptes yu mel ne IGE yu mel ne nag yi nga xam ne dafay dëgëral démocratie ci wàllu bonne gouvernance dañ ko war a dindi ci présidence de la République. te jusqu'à présent. waratu am benn lien ak le président de la république. c'est logé mhm. waxuma la lien sax raw na lien li am c'est-à-dire ils sont sous la. Mhm. sous le commandement du président de la république. dañ leen war a dindi waaw peut-être euh, moo xam ñu dépendre ci assemblée nationale ou euh, la justice wa euh, et cetera. nga xam ne saa bu ñu waree jóg danañ am liberté. Mhm. ak ay moyen jóg saytu li ñuy saytu loolu. Euh, donc doon na permetre jéegu boobu su ñu ko defoon. Mm-hmm. dina permettre ñu dugg ci phase bi ma lay wax jóge ci démocratie institutionnelle dugg ci phase u démocratie euh, moderne post institutionnelle. d'accord loolu di doon na ko permettre amu fi. ah non. ñing euh, ñu laaj la si affaire Barthélémy Diaz point euh, d'actualité la Barthélémy Dias coow bi bari woon na euh, pour Yewwi Askan Wi choisir euh, le candidat pour la mairie de dacar mais gis nga tamit ci jamono boobule l'affaire Ndiaga Diouf refait surface yéen ban jàngat ngeen ci am exactement ñu jàpp ni dañ koy xeexee le candidat Barthélémy Dias ban analyse ngeen bon loolu loolu fait partie justement mi ngi bokk ci jeexital yi nga xam ne Euh, démocratie politique et institutionnelle boobu ma lay wax am na ko. Mhm. parce que boo ko xoolee bu baax boo ko jàngatee bu baax dangay gis ne. Mhm. Euh, c'est des c'est un problème euh, de juridico politico juridique. Mhm. politico judiciaire maanaam dañuy jëfandikoo justice pour néewal doole adversaire parce que boo jëlee affaire Ndiaga Diouf boobu affaire Barthélemy Dias boobu mi ngi xewee ci su Ablaye Wade. Hmm. dafa am ay nervi yu dem dugg mairie. Sacré-Cœur attaqué ko moom mu def li ñuy wax légitime défense tiire ci ñoom mais bi ñuy ñëwee ba deux mille euh, euh, booba booba temps euh, booba Macky mi le président Macky. Mm-hmm. l'a soutenu. mais mais non boobu mi ngi ànd ak mm-hmm. Ablaye Wade. il était dans le régime de Ablaye Wade. Mm-hmm. je crois qu'il était premier ministre ou, ministre de l'intérieur ou à l'Assemblée nationale alors mais bi ñu ñëwee ba deux mille euh, deux mille euh, douze deux mille euh, pas de pas de pas de deux mille deux mille douze 2012. Après l'élection de Macky ou... Voilà, après l'élection de Macky, 2000 même 17, je crois, mmh. 2017 précisément, Macky a, a demandé à, a investi Ma, euh, chose, nous te dit Barthélémy, Barthélémy Diaz. sur ses listes. Et il a dit euh, que, bon, l'affaire Ndiaga Diouf, ce n'était rien, rien, sinon quelque chose qu'on utilisait effectivement contre, euh, Barthélémy. contre Barthélémy Diaz. ah, troisième étape, aujourd'hui, bon, euh, cette question refait surface. Bon, certes, cette question refait surface parce que mm-hmm. euh, moom ci boppam Barthélemy moo defoon appel. Mm-hmm. après pour seetal deram. pour seetal deram pour seetal deram. Mm-hmm. pour même condamnation bi ñu ko defoon te mu purgé ko. en réalité c' était injuste waru ko woon waruñu warul woon am waru ko woon purgé. tu mais le fait qu'on ait fait traîner ce dossier là jusqu'à présent et que subitement ñu ressortir ko. Hmm. loolu la nit ñi mais loolu la kon yow da nga jàpp ne dañuy utiliser justice pour xeex. mais bien sûr c'est ça qui s'est passé dans le cas de Sonko c'est ça qui s'est passé dans le cas de Khalifa et c'est ça qui se passe dans le euh, dans le cas de de Barthélémy. Euh... et ça c'est dommage. Mm c'est dommage et ça loolu dafay gàkkal démocratie dafay gàkkal image yu réew mi. te non seulement daf koy gàkkal mais c'est très grave parce que euh, arrestation yi nga xamee ne am na keroog bi ñoom Barthélemy bi ñu ko convoqué ba ñu jógee tribunal euh, pour des raisons de solidarité ay partisans di ko gunge ànd ak moom te defuñu benn kaas. Mm-hmm. ñu arrêté leen. arrêté leen téye leen loolu mënoon na indi lu nekk ci réew mi. tu as par la suite bi ñu leen arrêté ne dañ leen def notification ça veut dire que dañ leen di condamné mm-hmm. déjà li mu jur ci ay violence mm-hmm. yu amoon heureusement on qu'on les a relâchés alors donc je pense que euh, il faudrait que euh, en tout cas qu'on fasse très attention et ceci est valable aussi bien pour le pouvoir que euh, pour les autres entités euh, politiques. voilà temps bi bareetul mais une question très importante di importance bi nga xamante ni élection locale am na ko rôle bi nga xamante ni maire bi moom la war a jouer euh, ci commune ci goxam lan la exactement élection locale yi ñu war a amal janvier 2022 alors wax naa la ko sànq léegi nee naa la démocratie euh, pour mu jógee ci étape institutionnelle daal di ñëw dugg ci société bi pour defar xar kanamu société bi changer ko pour indi développement ak avancement li koy indi bokk na ci bonne gouvernance comme li ma la waxoon sànq mais bokk na ci décentralisation soo gisee réew yu mel ni Allemagne mais décentralisation surtout moom moo nekk à la base c'est un, le levier le plus important ci seen développement boo demee Allemagne ce sont les landeuses ce qu'on appelle les landeuses au Brésil euh, euh, bon parlons de de l'Allemagne seulement pour l'instant mm Euh, boo soo demee en France il y a les régions mais dafa am ñaari xeetu démocratie euh, décentralisation foofu aussi mhm. dafa am décentralisation yi comme dans le cas de l'Allemagne boo xam ne pouvoir central bi amul benn dogal bu mu mën a jël mhm. di diriger wala di jox budget wala di wàññi budget à commune bi commune collectivité locale yi parce que simplement dafa am ay fédération la en fait. Mhm. fédération la donc euh, landesi yi ñu ngi dépendre tu vois du pouvoir local déjà donc il y a un premier niveau de décentralisation. Mm -hmm. et les landes sont un second niveau de décentralisation. De, de donc dañuy gën a jege population yi. Mm -hmm. alors tandis que soo jëlee cas au Sénégal il y a le pouvoir central et ensuite. il y a un deuxième niveau de centralisation et euh, euh, collectivités yi dañuy dépendre. ci pouvoir central ci pouvoir bi. muy jël lenn ci ay sañ-sañam. di ko dogal. daal di koy jox jox euh, collectivités yi maanaam délégué collectivité yi ay ay pouvoir Par exemple, il y avait domaines de décentralisation dans un premier temps. Et ensuite, je crois que bi Macky ñëwee yóbbu na kii ba quatorze domaines. de décentralisation. Mm mais bi ñu ko defee aussi moyens yi ça ne suit pas. on donne les les, les domaines de, euh, décentralisation mais on ne donne pas les moyens budget bi c'est toujours voté au plan national. Est-ce que tu vois mm -hmm. ah, y a des fonds d'appui ay kii de transfert de de budget yu ñuy def ak yooyu et cetera et ça ça ne permet pas aux collectivités de se développer ah du budget des collectivités mi ngi dem ci fonctionnement fay ay salaire et cetera def ay secours et cetera et cetera mais mënul développer benn mënul changer xar kanamu gox bi mm-hmm. donc maire yi naan dinaa changer gox bi dinaa def lii ko mënuñu ko amuñu koppar bi amuñu sañ-sañ bi. Mhm. voilà donc il faudrait que ñu xoolaat bu baax ñu évaluer décentralisation fi mu toll ci Sénégal tu vois euh, et puis xoolaat bu baax ban xeetu décentralisation moo gën a méngoo ak fi ñu bëgg a jëm ci développement. Mmh. développement gox yi par exemple Wade bi mu ñëwee bëggoon na créer li ñuy wax ay province waaw ah, am coow lu bëri mu tegaat ko ci suuf. est par exemple Espagne province yooyu moo am. Mhm. province yooyu tu vois euh, donc dañuy am autonomie bu large par rapport au pouvoir central mën a jël yenn décision yi mën a am yenn budget yi et cetera di mën a doxal sans que ñu référé wu au pouvoir euh, au pouvoir central c'est le cas euh, au Brésil par exemple et cetera mhm. donc euh, c'est très important les élections locales les élections locales mais euh, ni ñu ko tëralee ni ñu ko tëralee tëralin bi euh, am na ay matadi yu bëri yu ci nekk yoo xam ne yi euh, du may Sénégal mu àgg fi mu bëgg a jëm fi mu jëm ci wàllu démocratie. juste quelque secondes fi ñu toll ci ci Sénégal est-ce que mën nañ fi sàcc élection yéen ñi nga xam da ngeen di liggéey ci fichier bi et tout est-ce que y a cette transparence élection mën nañ ko sàcc Sénégal waaw wala déet. waaw waaw mais c'est c'est c'est marginal. waaw c' est c' est marginal li ji tubaab di wax marginal. Mhm. c' est à dire que boo boo boo li ngay li ngay sàcc. Mhm. Euh, pour mu gagner loola lu jafe lay nekk lu jafe lay nekk te sax euh, boo moytuwul ñu jàpp la. Mhm. maanaam gis nga kaawu daara bi xaw ma Linguère bu yàggul rek ñi demoon ci période révision bi créer benn kii dem yóbbu ko ci benn kër. di di di fa yóbbu xale yi di leen bind. bon mais dinaa la wax par exemple benn façon boo xam ne xaw ma sàcc lañ koy tuddee wala déet. Mm-hmm. par exemple révision de listes élection euh, euh, électorales bi weesu. Mm-hmm. refonte bi partielle ou non non non révision révision xam nga code électoral bi dafa wax mooy loi bi nga xam ne mooy tëral affaire élection dafa wax ne euh, at mu xam ne dafa am élection dañuy def li ñuy wax révision exceptionnelle des listes maanaam dañuy xoolaat listes yi ñi nga xam dañuy changer adresse ñëw changer seen adresse ñi nga xam ne ñi ngi soog a matal dix huit ans ñëw bindu ñëw bindu waaw euh, ñi nga xam ne euh, dañu euh, kile par exemple nekkoon militaire nekk civil changer statut ñëw bindu et cetera alors toog ñu toogoon léegi ñetti at yoo xam ne defuñu révision te at mu jot suñuy def révision dina am deux cent mille gën gaa tuuti. Mm-hmm. yoo xam ne ñi ngi soog a matal seeni at. ah ñu ngi soog a matal dix huit ans pour mhm. bindu mhm. donc boo gam-gamlee ñetti at yooyu ñu toog dina jege à peu près cent huit cent mille mhm. waaw bu fekkee ne da nga yem sem deux cent mille mais bu fekkee ne bii ëpp na ko par exemple trois cent mille wala yooyu di nga am un million de votants de votants or bi ñuy bindu décret bi décret bi nga xam ne moom moo tëral révision exceptionnelle bi dafa ne pour bindu ci liste yi il faut que xale yi ah indi seen carte d'identité alors boo jàppee ne xale yu bëri amuñu woon carte d'identité donc dañu war a dem police ut carte d'identité ba pare soog a ñëw bindu donc da nga leen da ngay éliminer une bonne parti une bonne partie. de ces euh, néo euh, électeurs là. voilà. Euh, donc loolu loolu loolu na très bien lan nga ko euh, voilà donc c'est une façon waaw le temps ñoom ñuy dem peut ce sera trop tard ah, ci carte voilà c'est une façon d'influer sur le processus électoral voilà pour mu jëm peut-être fi nga bëgg mu jëm fa voilà. donc façon nañ ko tuuma voilà le régime de de Macky donc technique yooyu nga mën a def. Mhm. mais même yooyu du sori. du sori parce que xale yooyu nga xam ne danga nga leen empêcher ñu bindu bu ñu bindu woon xamuloo ko ñuy woteel est-ce que yow la ñuy woteel wala ñële la ñuy euh, opposition la ñuy woteel. donc mën nañu wax sàcc élection. vraiment voilà voilà waaw ça vraiment. je pense que waaw c'est un peu euh, derrière derrière nous maintenant ce qu'on peut faire évidemment temps ñu tàggatoo oui. voilà mm. mais il faut pa que ñu yemale affaire bi ci sàcc élection mm. cest à que mm-hmm. euh, est-ce que processus électoral bi mën na nekk processus bu mucc ayib wala déet loolu mooy problème mm-hmm. tu vois alors par exemple boo jëlee en deux deux mille dix neuf processus électoral bi am na beaucoup de zone grises li ñuy wax zone grise ay lëndëm lëndëm yu ci yu ci nekk yoo xam ne euh, bu ñu doon xayma élection yi mën nañu wax ne élection yi jaarul yoon tigi tigi elles n'ont pas été des élections transparentes ma jox la ci benn rek. élection deux mille dix neuf yi weesu deux mille dix neuf weesu parce que amoon na ci un million cinq cent mille cartes électeurs yu ñu distribué yoo xam ne yii Sénat fekkewu ko parti politique yi fekkewu ko. te kuréel bu ñuy distribué. ñooñu dañu fa war a toog xam nga loolu ci processus électoral bi la alors donc euh, euh, est-ce que loolu ça ci élection la ou pas mais en tout cas ce qu'on peut dire ce qu'on a constaté c'est que ça ça été une zone grise dans le processus euh, électoral comme am na yeneen aussi gàkk-gàkk yu nekk ci processus électoral bi mm-hmm. yoo xam ne au finish dafay tax ñu mën a jàpp ne élections yi elles n'ont pas nekkuñu yu mucc ay tigi tigi tigi donte xeex amu ci mhm. ca bésu élection yi nit ñi ñëw nañu voté tranquillement dellu seen i kër et cetera et voilà donc ñu euh, koy remercier bu baax a baax temps bi moo ñu xoj ki lee di Djibril Gningue nekk euh, responsable euh, paix sécurité au niveau du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance ñu gën ko xam ci GRADEC ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ak yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi de 10 à 11 dix heures jàpp onze heures ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité ngeen mën a suivre émission bi si suñu euh, site internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf.